assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbok julit yi mbok talibey sen mbokum julit sen mbokum talibé aladi Ousmane Wagne mo lay nuyu bax te di len ziare te di leen jaajëfatam bu bax bax te jiital ni nuyu be ziare be khalifatul amma tayfatul muridiya Cheikh mohammed muntaha mbake Mbacké allah rawo yàlla nako sun borom sàmbata tarak barke barki Seexul khadim di ziare ñep nak ci weer yuñ tekmal tëgmal wéru safar di weer wi nga xam ne weeru gën a léeg ñun xarati yow ma sabti saaminu asar li xit matil moxtaari fi sëri safar yàlla ngi dugg ci bisimilahi rahmaani rahim te génn ci ci alhamdulilahi rabbil alamin te di sëriñ bi bëgg lépp ci màgg yàlla sama borom sotti ko bàkk borom Tuubaa fas yéene ñëw nag ci xiste yi nga xam ne daal nañ ko indi muy xiste yoo xam ne yu xaw a raar la te lépp làmboo njëriñ ak maanaa ndax yi sëriñ bi lépp li la waay wax ci moom boo ko natt ci Rasulullah yi àndi salaatu salaam da nga ko ci gis ndax yonent bi bi nga xamante ni nekk na Màkka ba gàddaay fa ñëw Medina dafa am mu muhaajiruuna yi ak lansaar yi muhaajiruuna mooy ñi nga xam ne ñoo gàddaay Màkka ñëw Medina la ñu ooyee muhaajiruuna lansaar mooy nekk Medina mën na war dëkk fa yonent bi nag daan na leen boole ñu jaxasoo di jàppalante te dimbalante di jëriñante ci seen xam-xam ci àll ci lépp ba nga xam ne macha allah njëriñ di ci duñ juddoo sëriñ bi li mel noonu daan na ko def. bi mu nekk njariñ dal na boolante ay mag ñu nekk benn mi naan diw ak diw dangeen ngeen jàppante na ngeen bëggante na ngeen foogante àgg na sax ba ci xam-xam bi ko ci mbama mën naan diw ak diw seen kër yi ci àjjana ñoo sosaloo wala ñoo jàkkaarloo nga xam ne am na ci ñaar ñoo xam ne ni taalibe sëriñ bi leen sëriñ bi boole woon leen kenn ki xëñ ne am na xam-xam waaye kàttanam loxoom jotu gannaawam loolu kenn ki it am na macha allah yàlla sàmm di ubbi ko ci wàllu tane na nga xam ne kenn ki day am léeg-léeg am tudd ñëw yëgal ko ne ko man sama soxna yeweeku na ba sàngam di tudd gi mu di ko ci jàppale ba benn bés nag mu am am tudd soxna si yeweeku mu ñëw ba ci moom wax ko mu ne ko baax na dégg naa la ah mu ne ba tudd ga des ñetti fan mu waxat ko ko mu ne ko dégg naa la ba ci bésu tudd ga tam wax deug gisul waa def ci lenn daal yenn yitte mbaa yenn jéego gisul mu defoo ci ba gannaaw gi mu daal di jóg nag moom mbokk taalibe bi jóg siyaare gi sëriñ bi xamal ko ne ko man kat mbàkk tey ji sax amoon naa ab tudd waaye ma lenn loo xam ne mën naa ko caa def mu ko ah lu waral loolu mu ne ko ah loolu de xanaa ndogalu sama borom la mu ko ana diw sàngam mi nga xamante ni moom la la boyloon mu ne ko mu ngi fa de mu ne ko de koo yëgutoon mu ne ko ah kay yëg na ko de mu ne ko xanaa da koo yëg a yëg mu ne ko déedéet yëgu ko yëg ndax bi soxna si yeewee ko ci bees bi ci ci bees bees bi rek ci bees bees bi wax naa ko ko bi mu dese ñetti fan wax naa ko ba léegi it gisee nañ mu ne ko demal nga ol ma ko tey na ngeen ànd ñëw <coughs> waaw demal nga ol ma ko te na ngeen ànd ñëw mu woolu ko mu ñëw. sëriñ bi ne ko yow diw ana lu tax diw sàngam mii am aajo di la ko wax yàlla sama borom dénk la loo ko ko fajale te nga lànk bañ ko bañ ko ko fajal ana la waral loolu moom mu wax la ab aajoom nga mën koo faj te lànk bañ ko faj ana lu ko waral mi ne pat mi ne ko damaa bëgg yéen taalibe fii ci àddina ngeen di fi jëriñante te di fi dimbalante moo tax ma boole leen ndax kat yow ma la xam ngeen jëm amul kenn ci yéen ku ci yaakaar kenn ku du man yaakaar yi benn taalibe bu dul man amul benn taalibe bu yaakaar moromam yow ma la xam amul mu dimbali ko fa yéen ñëpp seen yaakaar yëpp mën ngeen ko aj nag fii ci àddina ngeen mën lante dara kon fii ci àddina dinañ fi dimbalante te fi jëriñante kenn ko ci lamtane moromam na ko ci dimbale di ko ci yow ma la xam ngeen jëm amul kenn ci ku fa yaakaar moromam ku dul man loolu nag keroog sëñ bi dal la ci moom dal yi am solo yedd ko ca nag yedd yi métti kon loolu njàng ma am solo nga ci kon taalibe yi war nañoo bàyyi xel ci njàngale moomu ndax kon comme fii ci àdduna lañ mën lante dara kon nañ fa fi dimbalante ndax kat yow na xeexam moom gañ jëm moom bi ñu fexe moom comme kenn dafa mën dara muy Serigne Touba moom la fi yaakaar kon fii ñu mën dara moom nañ fa jëriñante di fi di fi di fi di fi dimbalante loolu Serigne bi wax kon loolu mot naa xam mot a xel magal gi itam wax dëgg yàlla ñëw na ñoo nga ñaan sama borom fekk ko ak jàmm ak salaam mi sant bi nga xam ne Serigne Touba moo digle nañ ko santal yàlla suñu borom subhanahu wa taala ci ngëneel yi nga xam ne dafa na ko likkoon bikkoon sarmadana wàccal masiresa ay jaw fal falale war mesal ma ay ni kon loolu danañ ci waxtaan baax inshallah ci magal gi ak solo si mi santale ko yàlla suñu borom subhanahu wa taala dégg nañ nag ñi ñu ooy ay wahabi yoon wala salafiste di wax naan santale nit yàlla ndax ba ne bi daal ah wax dëgg yàlla Sëñ Tuubaa de wootewut santaaneem ngóob wootewut santaaneem deqi wootewut santaaneem lenn wootewut santaaneem tabax te bu ko woote woon itam mënta nekk bi daal dañ danañ ko defal waaye dafa ne ne nañ ko santale yàlla suñu borom subhaanahu wa taala lottu na ca ndax xam ne ne jaam mënta sant yàlla ba jot àqam sëgam nag moroomu jaam mooy am soxla santane santane go ñu gobal ko santane dëkk gi dëkkal ko santane tabax wala mo xam kër wala mi juma ñu tabax ko kon santane sant yàlla war na mën a ne ku taxaw ne santane santane ne ne santale yàlla bi daala kon na nga nangu ne kon santane go bi daala santane am dëkk bi daala santane ab bi daala santane tabax kër wala mi lu mëna doon wala mi wala mi wala mi juma bi daala kon ñu xamé ko noonu waaye nag koo xamul ko rek xamoo kon yàlla ñu sama borom dimbale te taxawuñu te defuñu ay xéwal yaatu barke borom Tuubaa ñun ñëpp nag yàlla ñu am mucc ak njëriñ faw ak ngërëm ak barke ju deñ mokk daal xab li maraamee yaa waxaabu doonahu nan wal tag fi ni ba sulahi ku la bala asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa